wala quwwata illa billahi alaliyi alazim juróom benneelu bind ci taaliq bi ñuy jéem ci téere bu mag bi di alchama'il almuhammadiya lil imaami tirmidiyi rahmatullahi alayh nee na xaddatanaa nettali nañu qutaybatu bnu saidin qaala mu ne mm. axbarani nettali na ma mm. allayth bnu saad mm-hmm. an abi an abi an abi zubayri mm. jëlee ci abu zubayr an jaabir ibni abdillahi jëlee ci seydina jaabir doomi seydina abdullahi ñoom ñaar ñëpp àndandoo yonantu lañ sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhuma na yàlla boole leen gërëm abdullahi mi di bàyyi jaabir bokk na ci ñi yàlla wax ak ñoom gannaaw buñ faatoo ci shahaadatu waaw loola neex ci ñoom ba mu ngeeju woon neex ci moom ba mu ngéeju woon delluwaat hmm. ñu rayaat ko ci yoonu yàlla hmm. yàlla ne ko ah ku xas dikk nag doo demaat hmm. ne ko kon nag xabaareel samay àndandoo li ma nee moom ngay gis ca laaya ja ca ali imran wala taxsibanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaatan bal axyaaun inda rabbihim yurzaquun farixiina bima aatahum allahu min fadli jële nañ ci jaabir moomi doomi seydna abdullahi ann yàlla boole leen gërëm mu ne anna rasulallahi naka yonentu sallallahu alayhi wa sallama qaala wax na ne urida gaara leef na alayya ci man al anbiyaawu yonentu yi yonentu yi nañ leen ci sama kanam ma gis leen ñoom ñëpp fa ida ci noonee muusa hmm. yonent yàlla muusa alayhi salaam barbun hmm. hmm. aji néew yàpp la barbun aji hoos la ñi ne barbun aji digg doomu la maanaa gàttutoon njoolutoon wala rëyutoon sewutoon ndax Muusa fa eh, njooloon ci yenn riwaaya yi ka daanaka moom min rijaali ata mu ngi tukkee ci góori giir gi nekk ci yaman ñu leen di wooye atu ñu ne giir la goo xam ne seeni nit duufuñ ba xëpp waaye sewuñu it kon dar bu kon mën naa dellu ca la ñu ne sax nag chanu ata lu tax tu misaale mu Muusaa ne ñooñ la niru mm. ay nit lañ ñoo xam ne ñu sori woon lépp loo xam ne mm. nit dana ca dugg tawaru caa dugg mm. lépp luy gàccal nit mbaa lu koy suufeel ñoom jomb nañ ko Muusaa noonu la mel booy xool ci bind nag ci melo nag danga nga gis yeneen xadis yoo xam ne dana wax ne Muusaa asmër nit la koo xam ne ñun la gën a niroo mm-hmm. moo tax tubaab yi wooye seen bopp surtout muusa mm. ba tax ñu dem nangu Palestine dëkkee fa mm. jotewuñoo Moussa dara ci mbokk mm. jotewuñoo moom dara it ci diine mm-hmm. foofu ñu tuddee Israël lépp Palestine la mm-hmm. lañ fa def lixtilaal la tooñ la yal na yàlla toraxal leen génne leen delloo Palestine arab yi ko moom ak lislaam waraaytu hmm. mu ne gis naa Isa yonentu hmm. yàlla Isa hmm. ibna Maryama kay doomi suñ sang Maryama alayhi salaam yal na yàlla yokk ci moom moog ndeyam jàmm fa ci noonee aqrabu man raaytu ki gën jege ci kuma gis bi ci moom shabahan ci niroo ki gën a jege ci ku ma gis mu niroog Isa hmm. mooy urwatu bunu mas'ud hmm. wa raaytu gis naa Isa bna Maryama alayhi salaam hmm. fa ida aqrabu man raaytu bihi shabahan ki ma gis mu gën a jege Isa ci niroo urwatu mooy urwatu ibnu mas'udin kay doomi mas'ud urwatu ibnu mas'ud mu ngi bokk ci faqiif mm-hmm. mooy bàyyi taxu way juru mugiiratu bnu shucba mm-hmm. ndeyam doom la ci abdu shamsin mm-hmm. bnu abdi manaaf mbokkam eh, mbokkam ndey aminatu la bokkoon na ci ñi gën a mëg ci aw nitam ca faqiif moom la quraysh yónni woon ca bésu Xudaybiyatu bañ teree yonantu mu diggu màkka te gis na ne yonantu yi ko xam doole la tere ko noonu rek du demee noonu moom gannaaw bokkul ci Quraysh waaye bokk naa ak ñoom te it di kilifa guñ respecté Quraysh yónni ko pour mu négocier leen seen diggante yonantu boobu tuubagut mi ngi tuub ba yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa Mm-hmm. yónnee abu ba mu dem ca aj ga ci atum juróom-ñeenteel ba mm-hmm. gongeeku fa mm-hmm. ñu ne booba la gannaaw booba la tuub daldi ñëw ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam bu dee riwaayatu ibnu isxaq wala benn ci riwaayam nee na ngi tuub gannaaw bu yonantu sallallahu alayhi wa sallam jógee taif yonantu nanguk tuubam hmm. mu daldi di ñaan ndigal yonentu ne ko dama bëgg a dellu ci sama nit hmm. yonentu ne ko ragal naa ñu ray la hmm. mu ne ko ah ñooñ bu ma fekkoon may nelaw sax duñ ma xee yonentu ne ko ah bon demal mu dem woo leen ci lislaam laay leen biir ñu matt ko wax ko lu jëfi wax ko ci lor loo xam ne mësu koo dégg ba njël jotee mu daldi jog jóg mm-hmm. noddu mm-hmm. ba muy noddu benn waay ci saqiif mm-hmm. sànni ko fett mu dee sànni ko fett fett googu ca ko reyee ba yonentu sallallahu sallam yégee loolu mu ne urwatu dee misaalam mooy misaalu saaxibu yaasin saaxibu yaasin mooy ki yàlla di tudd ci ci suratu ki doon woowaaw nitam di laayee biir bañ mujj rey ko mm-hmm. mu naan yaa layta qawmi yaclamuuna bi ma xafara li rabbi wa jacalani min almukramina mm-hmm. woo na leen laay na leen biir lu ne wax na leen ko mm-hmm. ñu mujj ko rey urwatu it noonu la mel yonentu mu ne misaalam mi ngi mel ni misaalam saaxibu yaasin daa qawmahu ila allahi fa qataluhu bañ ko fettee nag balaa moo dee laaj nañ ko moo loo gis ci sa deret ji yow urwatu hmm. mu ne karaama la joo xam ne hmm. yàlla ma ko teralee hmm. ak shahaada goo xam ne yàlla màng na ko jëm ci man maag ñi nga xam ne ñoo shahid ci xare bi soog a jeex te ñu àndoon ak yonantu sallallahu alayhi wa sallam maag bokk xatte kon nag nangeen ngeen ma rob ak ñoom ñu rob kook ñooña yonantu sallallahu alayhi wa sallam nag hmm. nee kim gis hmm. mu gën a niru yonantu yàlla Isa hmm. ci góor ñi mooy urwatu mi doomi Mas'ud moom it nit la woon koo xam ne eh, ñuulaay la gënoon a jege walla nga ne xeesaay aha nit ku diggu doomu la woon tamit ku rafet la woon mu ne waraaytu mm. gis naa mm. ibrahima yonent yàlla ibrahima mm. alayhi salaam mm-hmm. imaame yonentu mm-hmm. alayhi salaatu mm-hmm. mu ne fa idaa noonee aqrabu man raaytu bihi shabahan ki gën a jege ci ñi ma gis ñu niru ko saaxibukum wala ku gën jege ku ma gis mu niru ko saahibukum mooy seen waa ji moom bopp yaani nafsahu boppam la ci namm moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo gën niru ibrahima ci li yàlla bind ndax ibrahima ay maamam moo tax boo xoolee ndogu ibrahima yee ca maqaamam ba ibrahima ca makka mënoo ko xàmmee tànk yonantu yi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nga déggee ci nekkoon kon ko rafet la woon ndax yonentoo gën a rafet ci li yàlla bind hmm. mu ne waraaytu gis naa jibrila hmm. yàlla wan na ma jibril ci melaw doomu aadama hmm. alayhi salaam jibrila malaaka la yàlla wan na ko ci melaw doomu aadama fa ida ca saasa wala fa ida noonee aqrabu man raaytu bihi shaban ku ma gis mu gën koo niru mooy sayduna dixyatu mm-hmm. bunu xalifa mm-hmm. bunu farwa mm-hmm. dégg nga disatu imroul qaysi waaw ibnu alxazraj ibnu aamir ibnu bakr ibnu aamir al akbar ibnu awf alkilbi di saxaabi bu siiw dégg nga fekkeewul badar waaye fekkee na ay mashahid eh, gannaaw badar ñi ne bimu njëkk a fekkee mooy xandaq ñi ne uxud dafa rafetoon ba ñuy bu ci moom misaal ci taar bu jibril daan wàcc ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam daf daan jël melow dixyatu moom la yonantu sallallahu alayhi wa sallam yónnee woon ca Qaysar mu dajeeg moom ca Ximsa ci euh, njëlbeenu juróom-ñaareelu atu gàddaay ga wala ci mujjeelu juróom-benn atu gàddaay ga fekkee na xareb Yarmuk wàcc na Dimashq Mm-hmm. dëkk misra mm-hmm. dund na ba ci xilaafatu sayidna muawiya di mm-hmm. ko borom isaabatu waxee waaw ñu jàng beneen xadis da mel ni sax ñaari xadis yooyu des ci bunt bi xadis ju wér la nee na xaddatana nettali nañu sufyaan bnu wakiic wa muhammad bnu bashaar ñoom ñaar almaana waaxid menn maanaa la xaalaa ñu ne ma axbarana nettali nañu xabaare nañu yazid ibnu haaruna an saidin aljariri jëlee ci said aljaririyu qaala mu ne samitu dégg naa aba tufayl aba tufayl bàyyi tufayl lay firi waaye dàkkante la buñ joxoon benn saxaabi yonantu sallallahu alayhi wa mm-hmm. turam mooy aamiru bnu waailata aamiru bnu waathilata dara jara jàpp la nag mm-hmm. ndax mooy saxaabi bu mujj gaañu ci saxaaba yonantu yi aamir ibnu waathilata mm-hmm. mi ngi faatu atum téeméer ak fukk gannaaw gàddaayu yonantu sallallahu alayhi wa moo mujj ci saxaaba yonantu ci kaw àdduna mu ne samitu aba tuhayl radiallahu anhu yaqulu mu ne raaytu man dee gis na nabiya yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ma baqee te desut nag ala wajil ardi ci kaw suuf ahadun kenn raahu ko gis na ko xayri ku dut man amul kenn ci kaw suuf ku la mën na wax ne gis na yonantu ku dut man tey maanaam saxaaba yonent yëpp faatu nañ maa ci des xultu ma ne mm-hmm. ah loolu de occasion la kon ma ma xam ni mel mm-hmm. sifhu mm-hmm. melal ko lii ñeel ma qaala mu ni ma kaana nekkoon na moom mu xam muhammad sallallahu alayhi wa sallam abyada di aji weex maliixan di aji rafet muqassadan di kuñ digg doomul sallallahu alayhi wa sallam niñ ko jàngee woon démb ci juróomi xadis yi ñu doon tegtaloo mm-hmm. ci xadis yi weesu woon doon wax ni yonantu mel mm-hmm. Mm-hmm. yonantu fa weexoon weex goo xam ne dafa jaxasoo ku xonq mooy xees pecc ñu ne léeréet liy feeñ ci jant bi moo mel noonu waaye li jant bi gisut yëre tegewut eh, dégg nga eh, yëre muur ko loolu moom fa weexoon tàll mel ni xaalis am na nañu wax lool xaddatanaa nettali nañu abdullahi ibnu abdirahman abdullahi doomi abdirahman xaddatanaa nettali nañu ibrahimu bnu lmundir dégg nga alxizaamiyu xaddatanaa nettali nañu abdulaziz bnu abi haabit azzuhriyu xaddatani nettali nama ismailu bnu ibrahim mu mel ni dafa dafa lëm Mm-hmm. mu ne la ibnu axi muusa ibn ibnu axi muusa bni eh, uqbata mm-hmm. waaw ismail ibnu ibrahim mm-hmm. mu ne ibnu axi muusa mooy doomi mbokkam muusa ibnu uqba muusa doomi uqbata dégg nga mu jëlee an muusa bni uqbata mu jëlee ci muusa bni uqba an kuraybin mu jëlee ci kurayb an ibni abbasin mu jëlee ci seydna abdullahi doomi abbas doomi seydna abbas radiallahu anhuma yal na yàlla boole gërëm leen qaala mu ne kaana rasulullahi kaana nekkoon na rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ahla jathaniyatayni di aji e, taqalikoo ji ay bañi kanam dégg nga athaniyatayn wala athanaya buñ ne thaniya ñaar la buñ ne sanaya ñeent la loolu mooy lan ñeenti bañ yi ci sa kanam hmm. ñooy ñaar yi ci suuf ak ñaar yi ci kaw hmm. bu ñu amee ab yër yër ci diggante bi hmm. wolof di ko wax sàkkale yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi noonu la meloon waaw jàng nañ ci yeneen riwaay ne bëñam yëpp sax nag dañoo tàqalikoo tàqalikoo ku rafet la takallama nem wax na moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ru'ya giseef kan nuuri mel ni leer yaxruju mooy génn min bayni thanayaaw ci diggantey bëñam sallallahu alayhi wa sallama allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarin azim ñu taxaw foofu mm-hmm.